asalaamaaleykum mbokk yi ñuy seetaan si la Vallée Info LVI am bekté contentement ànd ak yéen tey nag ñu ngi fi ci dëkk buñ nane naan Ngidilone fas yéene sekk ak waxtaan ki nga xamné moy présente mouvement président Yeeyo Fouta di wuyoo ci turu Kellel Ndiaye Kellel ñu lay nuyu défé na juum ma présentation bi. juumoo non la sax Ma ngi leen di fay Euh di leen. jox seen wàccuwaay ak dérangement bi ngeen def ba ñëw ba fii jéggi ñu leen ci remercier bu baax a baax. ginnaaw jamono yi nga xam ne kii di njiitu réew mi Macky Sall teewoon na fii si diwaan bi loolu ban gis-gis ngeen ci am. Euh, euh, teewaayu Macky Sall si diwaan bi dañ ci am contentement bu rëy ndax ñun li ñu bëggoon la am président de la république ñëw fii ci Fuuta gis li fi dox ak li fi doxul mu mën see tëg bëtam fekk kenn waxu ko ko. kenn nekkul interlocuteur suñu digganteeg moom mu xam suñuy jafe-jafe gis ko loolu lu ñu neex la. léegi kon la moo waraloon seen taxawaay bi nga xam ne am ngeen ko si jamonoy euh, tournée économique bi. waaw ndax dañoo yàggoon a bëgg président jaar Fuuta ndax diggoon digge woon na day jaar une fois deux fois muy fossé bi yoon moom yàlla def mu ñëw Fuuta te à chaque fois bu diggee ni day ñëw Fuuta ñun dañuy préparer wu di ko accueillir di ko accueillir nag à notre façon. pour won ko ni euh, Fuuta dañoo am ay jafe-jafe yoo xam ni nañ koo joytu mais kenn gestuwuñu ci euh, boo dégloo sax tur bi tur mouvement président Yeejo Fuuta mooy président gestul Fuuta gestul waa Fuuta ñu ne nag comme am na ñoo ne ñu ngi suñu diggante ak moom ñoom lañ yónni woon ci ñun te ñu ngi leen di joytu mënuñoo fexe ba am résultat bo xam ni mu ngi ñuy satisfaire ñu bëggoon président si boppam bu ñëwee ñu won ko am na nakari. mu su fekkee mun nañu ko saafaral baax na su ko mënee tamit mu xam ni am na lu metti waa Fuuta. ndax mën na jàpp ni seen jafe-jafe yi ngeen doon kii seen naqar saafarawu na. avant muy ñëw avant muy ñëw dañoo déggoon ni pause prière wu hôpital Ourossogui rek la doon ñëw def loolu sax dañu woon ni dañu daan naan c'est trop tard ndax dafa ñëwoon immigré yenn région yi ñun dafay ñëw poser pierre maanaam dañoo nekk Bingel Morow comme ni mu ko doon waxee Bingel Morow mooy doomu leetukat du du leetu jour julli mais vaut mieux tard que jamais comme posé na pierre bi alhamdulilah yemul si loolu euh, désenclavement bi loolu lañ doon jox aussi gis ngeen yoon yoon bi nu mu mel lu metti la depuis des années ñu ngi koy dund ñëw na posé na première pierre désenclavement Dandemayo loolu tamit ci lu am solo la ci ñun. li ñu doon joytu ay 10 priorités la won légui dafa melni 4 quatre priorités yi commencé nako entamer moy hôpital bi désenclavement bi ak euh, université bi yokku na ko si ak tamit aéroport Ourossogui donc lolu def ñuy soulager d'un côté de l'autre côté du question posée bi rek moo si tax soulager wu dañuy bëgg dañuy bëgg bu bu ñu mu am suivi ndax gis nañ ni président day joxe ay euh, ay euh, ordre instruction yoo xam ni duñ ko exécuter comme ni mu ko waxee loolu gis nañ ko partout dans le Fouta léegi nag looloo taxoon ñu gë gën a bëgg gis président gisanteeg moom mu xam ni am na yoo xam ni joxoon na ordre pour ñu def ko waaye defaguñ ko mooy yoon bi euh, ci lañ wurusoo gi depuis biñ ko commencé ba léegi li ci desoon bariwul mais ba léegi temps yi muy doog a ñëw lañ koy commencé accélérer dafa mel ni ñi nekk fii ñoom bu président ñewul woon rek non la yoon bi di démé ba kenn xamul ban at lay jeex légui nak ñu ngi koy accélérer alhamdulilah loolu yépp ci ay avancement la. dafa mais dafa mel ci ponku yi nga lim ñent rek nga lim ni mom mo antu mu dess juroom ben légui yooyu nag ban taxaway ngeen ci fas yéene am aussi pour ñu régler leen saafaraal leen loolu. waaw merci ndax dembu woo na ma woo ma Matam fofu la yendu pour ma am ak ñom rendez-vous ñu mën fixer rendez-vous ak. groupe yi yëpp mooy mouvement yi juddu ci Fouta. depuis mouvement bi am na de ou trois mouvements yu jiitu mouvement président Yeeju Fouta mais boobu ba léegi ay mouvement yu bëri juddu nañ ci ginnaaw mouvement président Yeeju Fouta bi ma ne dinaa leen wo nag ñu waxtaan ma won ko ni mouvement président Yeeju Fouta du moom rek moo nekk ci Fouta ay mouvement yu bëri juddu nañ euh, ginnaaw mouvement président Yeeju Fouta dem maa bëgg nag boo leen may woo ñun ñëpp ñu daje ñu wax ku nek wax ay jafé jafeem fekk ñun ñëpp a ndax ñun ñëpp ñoo bokk xex bi ba fi mais loolu mbaadu téel xel ji nga xamné ñu ngi njott ni est-ce que du politique mo lalu si yenn mouvement yi wala lu justement pour éclaircir les choses ndax amna na ñoo xam seen mouvement yi dafa xaw dafa melni ay mouvement yu opposant la ñu wala amna ñu nek seen ginaaw ñun nak xam nañ biñ commencé ba jour bi may wax ak yow waxu sax opposant wala keneen wala même président de la république kenn du ko fa sant kenn du fa ko fa gërëm opposant kenn waxtu ko fa du ñu nangu kuy indi waxu opposant ci mouvement bi du nangu kuy indi waxu président di ko gërëm wala di gërëm benn leader si mouvement bi ndax ñun fuutaak ñu tax a jóg beneen leader taxuñoo jóg beneen opposant taxuñoo jóg gis nañ nag am na yoo xam ni euh, ñu ngi am ay soupçon am na ñu nekk seen ginnaaw mais loolu ñun amuñu ci lu ñu leer mënuñu cee wax mais ñun moom xam nañ suñu bopp Fouta rek moñu ñu tax té président lañu ñu waxal bëgguñu won interprète ah, suñu digënté ak mom bëgguñu won interlocuteur depuis deux ans ñu ngi out ay interlocuteur suñu digënté mënu ñoo fexé ba am ko à partir de certains moments dañu né c'est fini seetuñu kenn kuy nekk suñu digënté ak mom dañoo bëgg affronter rek président de la république wax ak mom munoon na nekk nak fi ak 10 ans mais dootuñu yoni kenen ci mom suñu digënté ak mom lay doon yalla def na mu soti barki dembu sotti na léegi ñu bëggoon xam aussi comme ay mouvement yi comme lim nga sànq yenn mouvement yi seen diggante naka lay demee ba xam yéen gisee wala yéen a ngi jokkoo parce que daa mel ni xeex bi mun na ñu wax ni yéen a ko bokk. Mhm, ñoo ko bokk vraiment ñoo ko bokk ndax ñun ñëpp li ñuy jooytu presque benn la même su fekkee am na ñoo xam ne luñ am na lu ci yokk lii moom ñun li ñu jooytu di priorité yi boo seetee di priorité bu nekk euh, concerné na waa Fuuta yëpp. ndax bu waxé ay yoon ñu wax ay hôpitaux ay universités emploi des jeunes ak des des formations euh, lu ci gëna bari dal dafa melni ça ça enveloppe tout le Fouta donc su fekkee am na yeneen mouvement yooyu jooytu leneen euh, bëriwul ndax ñun ñëpp ben solution bi rek la ñuy wut mooy euh, électrification des villages yo xamné amuñu électricité ak ndox ak yooyu ñoom yooy yooyu la ñuy jooy ñun mun nañ am nañ courant am nañu lépp mais lu ñuy jooy rek pour ñun ñeneen ñi la ñuy jooyal ñoo xam ne amaguñu ndox amaguñu courant ñooñu ñoo tax ñuy jóg di jooy ak yeneen ak yeneen yi ci dopp ñun moom di priorité yooyu ak euh, lu mel ni euh, lu mel ni gendarmerie sapeur pompier maanaam amuñu ko ci Dande Maayo bi euh, su fi lakk-lakk amee dañuy sonn loolu tamit ci sunuy jafe-jafe la bokk. te yooyu yëpp des na. des na waaw des na loolu lépp nag comme nee nañu dañ ñuy woo pour le moment dañ ñoo buggoon a woo wax ak ñun rek ma ne leen noon munul nekk mouvement yi bëri nañu il faut ma contacter mouvement yi yëpp recenser leen bu boobaa ngeen jox ñu rendez-vous. ngeen jox ñu audience ñun ñëpp ñu toog ñu waxanti dëgg. mais mouvement yi bëri na ndax juboo ngeen seen biir yéen mouvement yi. si amuñu problème ci sunu mouvement yi. am nañ benn souci ci benn mouvement boo xam ni mu ngi doog a juddu mouvement boobu mu ngi tudd Fouta Tampi 2 ndax Fouta Tampi 2 boobu boroom ci ñun la bokkoon mais dañoo gis euh, il des moments yoo xam ni am na lu ciy génn ñu neexuñu ndax ñu nekku ñu fi di xeex wala di xaste wala di saaga non non suñuy la ñu bëgg revendiquer calmement avec diplomatie mais dañoo gis ni am na yenn yoo xam ni vraiment bu ci duggee day indi ay affaire de racisme ak yooyu nous écarter les piste des nu mais desee woon mais yeneen mouvement yi des il y' a pas de problème on s'entend da nga y a peut-être une euh, divergence divergence vous entre mouvement le c'est C'est possible C'est possible que ça soit quelqu'un qui est derrière ou je sais pas je peux pas je veux pas dire quelque chose que je connais pas mais xam ni amna lu nek ci amna lu ñuul ci biir loolu nak man dama ci waxone waxati waxat ki ma xamni nak affaire bi dafa xawa démé bor ma bàyyi desaat ci lima ma man bàyyi leen. Mhm. parce que même mouvement dañuy ñëwaat sa wal sa mouvement bi parce que tamit amna lo xamné ne eh, dañuy laaj ba xam eh, ñi nga xamné ñoo nekk ci diaspora bi peut-être amna rôle bu ñu si joué wala amnañ ci wal aussi. ci mouvement bi. amnañ ci rôle bu important sax ndax mouvement bi mu ngi fépp dans le monde en ce moment mu ngi dans le diaspora États-Unis France Belgique euh, Cameroun Gabon Côte d'Ivoire Congo diaspora bi presque ñu ci bari xam ngeen diaspora moom buñ ko waxé ay footañ ci ñoo ci gëna bari donc dañ see japp bu baaxa baaxa baax suma waxé fi ci Sénégal national bi ñu am nañ fi quatre départements Podor Matam Bakel non Kanel et Ranirou Ferlo ak euh, bu nekk Dakar donc muy 5 sections yo xamni mouvement euh, président Yeeji foota mo leen tax a jóg. kon mën nañ wax ni peut-être mouvement bi si diaspora bi lu foofu la bàyyeekoo. mu naka ngeen def ba taxawal ko aussi parce que lim nga fi ay dëkk yu bëri naka la def ba euh, juddoo noonu. Euh, dafa fekk nit ñi xam nga comme niñ koy waxee rek euh, lu nekk lu fees lu ëpp day tuuru. te une goutte d'eau peut faire que la vase se donc nit ñi dañoo amoon lu leen metti seen xol yi fees amuñu fuñ koy jooytu. amuñu kuñ koy jooytu ñu noppi toog ci kaw loolu man nag euh, loolu moom du ma ko nëbb ndax dañ ñëpp xam nañ ko man dama nekkoon ak président nekk ak moom premier mandat nekk ak moom deuxième mandat ba ñu def euh, ba mu des ñu koy élire ba ñu xam résultat yi le jour bi ñu xam li mu te c'était le 27 février 2019 li bi résultat yi di génn ma toog nag ne tey jii bu résultat yi génnee presque xamoon nañ ni président déjà falu na mais il faut ñu am lu ñu leer bu ñu amee lu ñu leer ci loolu man am naa beneen doxin bu ma war a dox ma nag opposant utuma leneen mais Fuuta dina ma tax a jóg Fuuta moo ma tax a jóg. am na ñu bëri ñu daan wax ni peut-être que dama dafa am opposant bu nekk sama ginnaaw damaa bëgg bàyyi président damaa bëgg dem feneen wala dama bëgg su président defaree Fuuta ñu ne man maa fa jaar ma ne xam naa ni président du defaree noonu Fuuta. ndax ñu bëri jaar nañ am na kon am na foo njëkkee woon. avant mouvement bi avant mouvement bi maa ngi woon ci APR.

ci ginnaaw ndax nee na bi ngeen moo raw firata dañ koy bàyyi ci muu boobu ñu bañ ko cee sonal ñu bàyyi premier mandat bi jàll deuxième mandat bi ñëw nag ñu teel a jóg pour xamloo ko ni ñun tamit ci Sénégal la bokk bu mu ñu fàtte bi yoon ñu gëstu. Mhm. mu mel ni kon gisoo leen seen bopp si liggéey li nga xam ne président mu ngi koy amal te pourtant dañ ne nedda ko bandum. c'est ça mhm. ko bandum vraiment sonal nañu sonal nañu. ndax ne da ko bandum mooy sa mbokk bu defee lu mu mënta def rek comme sa mbokk la doo ci wax mais ñun loolu dindi nañ ko teg ko fële sa mbokk bu la dimbaliwul il faut nga wax ko dëgg wax nit ki dëgg nag du tax nga bañ ko ndax boo bëggee nit il faut nga wax ko dëgg boo topp ci ginnaaw nit di ko tàccul naan lépp baax na lépp leer na fekk ñii fi nekk ci gor bi di ko dund dañ ko suur ëllëg ci biir su buggee dara dina ci am tolof tolof te fekk ñoom ñoo ko waral dañ ko war a wax dëgg Fouta manké na li ak li ak li mom mu mën ko safara safara len suko mënul tamit mu wax len deug bi munu ma def tay ji wala euleuk mais dina ko def mo gën ni diko couvrir nan c'est très bien fekk c'est pas très bien. très bien si fatali rek bokku yi suñu gan tay mu ngi wuyo ci turu Kellel Ndiaye di présente mouvement président Yeejo Fouta kelel ñu ngi jëm ci li nga xam mom modi élection locale yi sen mouvement ndax yéen a ngi am taxaway bo len ci bëgg a bu baax a baax euh, bëgguñu see taxaw ndax jël ci poste wala jël ci nekk maire mais xam nañ ni am am na commune yoo xam ni seeni maire defuñu dara liggéeyu ñu dara ñu ngi foofu rek pour être maire tour bi rek moo fa nekk ñooñu nag foog ñu jëlee leen foofu. kon da ngeen di fas yéene doon candidat si élection locale yi. fas yéene doon candidat ñun personnellement non loolu nekkatul nekkagul si doon suñuy tête en tout cas xalaata xalaatuñu ko pour le moment. mais nag fépp foo xam ni am na maire boo xam ni da nga xaw a kii bëgg nañ nga jóg jóge foofu jox keneen koo xam ni dina la liggéey commune bi ndax duñu teg foofu en tant que maire te doo def dara dëkk Dakar xamoo luy xew ci par exemple ñi fi nekk fii ci suñu village bi Dakar la ñu dëkk xamuñu lu fi fanaan xamuñu lu fi yeewu donc ñooñu boo leen dénkee commune duñ ko liggéeyee duñ ko war a liggéeyee looloo tax nag il faut que affaire bi soppeeku melaat ne léegi yan stratégie yan fas yéene teg aussi pour <laughs> taxawal loolu aussi. ñu ci dikkee rek incha allah dina dinañ ndax euh, loolu dañ koy kii ba pendeen yoon. question bu important bi nga xam ne si lañ rek mooy ñi nga xam ne euh, ñooy nervi yi. te ñu gis seen taxawaay peut-être seen diggante loolu aussi ban jàngal nga si am. loolu ma naqari la te naqari ne population Fouta yëpp ndax loolu ma su fee am moo tax ñu koy ñaawlu bu baax a baax a baax.

indi nañ descendre nañ fi deux cent cinquante nervi ñoo xam ne dañu dóor nit ñi te man gis naa ku ñu dóor ci ñi ma indi woon am na ci benn pas boo xam ne am na euh, ay cinquantaine portable moo waddoon mu koy for ñu daal di koy mbej mbej bi nag heureusement que def ko def ko rek dalu ko mais pas boo xam ne am na 57 ans boo ko dóoree nerf yi ñu toll ponkal yi bu ñu dóoree pas boobu te kut amul doole dañ ko naroon a rey te dóor nañ fi ay nit ba gaañ leen loolu moom ku ko mënti def vraiment damaa bëgg président vraiment ci boppam wax ci loolu ndax bu fi ñëwee bëgg am jàmm ak nit ñi jàmm santel ak nit ñi xam seen i jafe-jafe jarut ñu fi indi ay nerf yi ñu dóor ndax euh, loolu mënoon naa jur lu lu lu grave am na benn ci ministre yi jour ba fi demee bi ñu fi ñëwee bi président ñëwee fii ngi jëloon bi ñu takkee sunuy brassard rouge ak sunuy t-shirt am na ñu bëggoon a dal si xale yi di leen door benn ci ministre yi laa wax ni ku fi door fii ci Nguidjilone benn xale boo gaañ ko man maay seen responsable fii si ci Nguidjilone ñi ñëw jóge Ranérou podoor Matam ba fii ñëpp fi sama responsabilité lañ nekk di laa leen jox nag autorisation ku képp ku leen door comme nervi nañu fayu te dañoo bëgg a taal Fuuta comme ni ñu taalee Dakar kenn mosul gis ay problème ci Fuuta mais dina commencé mu ne mu bul ne dama koy wax ndax yéen ko commencé jarul ngeen fii di ñëw di ñu seet si di indaari ñu ñuy dóor boobu nag la jóg dem ne na ñu arrêté nervi bu ñu laal xale yi intervention boobu moo ko def si du woon loolu dinañ dal ci xale yi gaañ leen te jour boobu xale yi dañoo joxe woon seen bakkan ku leen dóor dañoo naan la fayu Ourossogui tamit ça s'est passé comme ça euh, booy naaji aussi dóor nañ xale yi gaañ leen loolu lu ñuy ñaawlu la ku ko mënoon a def nag dañoo war a wax ak moom xaw ma kan moo ko def am na ñu ma ci dégg bugguma tooñ kenn bugguma wax turu kenn te wóoruma mais ñi ma dégg seen tur ñoo ko indi su fekkee ñoom la def nañu ñaaw def nañu soof ndax ci seen bokk la ñuy ñëw mënuñu woon ñëw di ñu seet si di xool sunu naqar ak suñuy jafe-jafe di ñu indaaleel ay ponkalu góor nañ dóor xale góor yi joxu leen luñ lekk joxu leen leen naan joxu leen leen liggéey ngeen di leen dóor lool moom ànduñu ci tey ànduñu ci ëllëg te bu mu amaat kon euh, Kellel ñu ngi lay jaajëfal vraiment si ni nga ñu teewloo ci teewal ñu merci maa ngi leen di gërëm di leen sant nag ci seen ñëw gi. mbokk yi ñu ngi leen jaajëfal yéen it si teewlu bi ngeen ñu teewlu àndoon ak ñun si euh, la Vallée Info di leen dig daje rek ba beneen yoon si beneen émission.